li mu jigéen gën a soxla ndox cala la leneen lu mu mën a doon tegandaay la waaye ndox moom li jigéen gën a soxla ci la te wax dëgg yàlla jàppale nga nu ci ñëw na jigéen ñi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm. sant nañu la gërëm nañu la ndax yow yàgg nga ak noonu xam nga yàgg nga ak noonu dañ lay sant di la gërëm di sant imaam yi nga xam ni wax dëgg ndox mi dox na ci ba tàyyi moomi dox na ci ba tàyyi toogu ci noppalu ci bis bi yàlla sàkk mu ngi ciy jóg di ci dox ba yàlla indi na ko tey jii kon dama leen di sant di ko félicité jigéen ñii maa ngi leen di sant di leen gërëm bañ bale bi set setal bi nga waxoon nii la leen cee fekk yàgg nañ ci ñu dalee set seetal ñun mat ëpp na ñaar fukki waaye wax dëgg yàlla de mboolam seen yi boo génnoon yëpp raadoo nañ ko lakk nañ ko li ci des nag mooy comme nañu waxoon am na seen yoo xam ne dañ fee yàgg ca maam yàlla woon kon yooyu sëg tracteurs yi ñoo ko mën a tas ñun nag wax dëgg ñoom lakk nañu li fi ne lii lépp lakk nañ ko li fiy mbalit lakk nañ ko. bu ñu waxee ci ndox ndox mu sell mooy ndoxum robinet bi ndoxu teen yi wax dëgg yàlla baax na lool waaye ay fóot ak i raxas moo tax mu jóg waaye ndox mu ñuy naan moom ndoxum robinet moo ci gën kon bu yàlla dogalee mu indil ñu robinet bi ba ci biir penc mi fii loolu. mbégteem waa dëkk bi yëpp la ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm ah dafa bokk rek ci lenn ci nga xam ne ni réalisation yi nga xam ni def na ko ci dëkk bi bii moo ci mujj nde yeneen yi bari na lool mënee suta lim yëpp bari nañu fa tabaarakallaahu kon euh, euh, monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci loolu ah du ñàkk nag itam ñu gënoon bëgg mu gënoon a yaatu ndax bo xolé ni dëkk bi tollu buñu xëccé ben robinet rek indi ko ci penc mi fi muy ben rek bu boba dina dem ba liñu doon bañ ci naan ci ndoxu teen yi dina dinañ ko naan ndax fay am ñu muy sori lool ba défé buñu mënon na a tiwo bi guddal ko ba nga xamni yenn quartier yenen yi ci dess ku bëgg xëcc di nga dina la jégé ba nga mën ca xëcc ba taxna dal ah loolu du ñak ñu wax la ay doléances yo xamni ni xeyna dëkk bi ñu koy soxla ba légui lu melni walu yoon wi ak courant bi. té dañ fi ñëw ànd ak entreprise bi nga xamné mom la Thione Diop jité pour inaugurer travaux yi nga xamné mo jëm ci walu ndox fi dans la commune wax na leen ko kérok lu mat juroom ben fukk million duggal nañ ko ci walu ndox te loolu day xel di continuer kon dañu ñëw fi Ngombel war ko def également. Dakar Mbay war ko def Kër Baara Pël war ko def également CSN euh, keroog def nañ ko jàmm a gën donc lii dafa nekk ci liggéey boo xam ne askan bi da ko soxla ñu fekk leen ci loolu nag fukki at a ngi ñu koy def kon ñu ngi sant yàlla bu baax mi ñu may ñu egg liggéey bi ak jàmm.